ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw loolu daal liggéey nañu dal bi tey respecté ko muy bëreel loolu rek dañ jeex na daal di ñu ko sant jeex ñaan yàlla yàlla may ma ndam. fay fekk. loolu moom. mais loolu ngeen gën a liggéey da liggéey jël loo affaire rek mais vraiment bëgg naa bëri nag ragal naa après combat la guerre papa euh, la guerre site ragal naa dinaa ci bëri incha allah. émission bi dama ñëw parce que parce maa ngi ci chaque jour damay entraîné lundi ba samedi parce que dama ba euh, a am incha allah waaw mais xam naa ne retour aux ko xaar. taxaguma jabar de <laughs> xanaa nga ñaanal ma rek wala wala nga ma soxla su wala nga may ma sonal si bopp non non sëñ dañ may sonal dañ may sonal lool mais damay jaayante quoi xam nga ak ki ñu ma tuddee dag ma neex xam nga di ma jaar ci sëriñ bi xam nga mais man xam rek ak ñu ma tuddee yenn yi sañu ma dal moo may jaayante ba léegi yombul nag mais lu métti borom jumaa ji sëñ Tuubaa xarit man Moussa te sama maam avant muy gaañu daf ma waxoon loo mënta am rek xam ne yaay borom jumaa ji xaarim daa tudd waaw ñu ne Ousa numéro 2 waaw te yow dañ mu ngi nekk nit ku baax liggéey bi tamit jar na yoon

yéen ñaar yéen maam non soxna yi dinañ ñëw di seen bopp. mais man xam nga yéen ñi dama cee nekkul moo tax. non non du ma ko def du ma ko def. xanaa ñu ñaar non mosuma ko def pour jigéen sax mosuma ko def. macha allah macha allah yow kay xanaa fa ah, yombul nag waaye yombul mais ndimbalu yàlla rek xam nga àddina moom soo si nekkee tamit nga xam li nga bëgg xam yaay kan tamit vraiment loolu rek la ah. wa wa yow ñaanal ma bëgg naa bëgg ma génnaat ji ren ren waaw ah, ren moom ren bëgguma si génn moom incha allah ren bu soobee yàlla moom bëgguma si génn incha rabbi waaw amul benn problème kii moom sunu suko la mooy sunu entraîneur ba physique suko nekk nit bu baax waaw nag macha allah soo ko gisee xam ne pare na wax dëgg yàlla li nga ko digal moom ci yoon su ko defee suñu borom mën na ko may dem waaw te la tey moom combat bi warul bàyyi Mama Lamine di ko diriger moom moo war a diriger combat ba pare benn loxo parce que ñaari song kat ba pare combat njëkkante la kon day dox ci koom pied fermé am écart di xeex benn loxo saa ko Mama Lamine song mu tëral ko jàpp parce que moo sàcc doole kon yàlla ko yàlla sutural defal ko ndam te barke Seexul Xadiim bëgg rek. waaye delloo bëre bëre. saa yu ma la gisee dama lay jël. non lu leer. gis nga loolu wala gisoo ko. non lu leer. Eh, mais avance bi ñëw na wala ñëwul. non ñëwul xam naa léegi rek. léegi rek. incha allah noo àndee tey sa sa sa sa frère. koo ñaanal ndam rek. waaw waaw sëñ Fall. waaw jërëjëf. jërëjëf Fall. sama boy la. prochain combat fii du yomb ku nekk ko bëgg daal. poussé. incha allah ñaa ngi ñaan may ma ndam lu gaaw ci kàttanu yàlla incha allah waaw dafa bokk ci làmb wax dëgg yàlla dañuy calculer sax fii sax wax dëgg yàlla si place mais sant yàlla rek mais sant yàlla rek di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam lu sedd guy ñu bëre jeeg suñu morom ci kàttanu yàlla ah <laughs> waaw yàlla baax na quelques instants léegi dina leer incha